askanu commune bu Ndangalma tey jii nag danoo amalan benn doxu ñaxtu jëmale ko ci ñi nga xamante nii moo di waa Aquatec bu nu sukkandikoo mañ njéemi Njaay mi nga xamante ni moo yoroon kàddu manifestant yi kuréel gi nga xamante nii moom lañ jox seen forage bi depuis ba mu ko yoree ba léegi lim leen wax dara defu ko ci jafe-jafe yi jamono ñi dafa gën a yokk. yàlla dafa dogal bi mu fi ñëw suñuy nawle yi ñu àndaloon ñëpp dañ ko gàntal ñun ñu nungul leen ko ndax dafa am liñ ñu tegaloon ba tax ñu nungu liñ ñu tegaloon mooy ndox mi dina sell dana doy te du cher loola dox nañ ci at waaye ñu xëy ndox mi baaxatul cher na doyul lijjanti ay fere yoo xam ne dañ leen da ngay xëy ñëw ñu leen tey sa junni bii di nga ci teg téeméer wala di nga ci teg ñaar téeméer te nekkul ci facture facture boobu mu boo ko seetloo bu doon ci réewum tubaab la buñ ci sukkandikoo warunoo fay dara dëgg la waay commune Ngoy quartier Ngoy moo nekk ci facture yi xañ na nag dañu yaakaar ne fii ab àll la ni waaw waaw toj robinet yi sept heures huit heures dootul am ndox ba bët di set problème bu ci ne léegi dama ne groupe bi am na fi problème maire bi mooy jënd batterie ñoom jënduñu batterie ñoom seen njariñ seen bëgg-bëgg daal mooy ñëw ramasser xaalis bi dem fi ñëwee léegi am benn branchement bu am ndax béykat yi dañoo bëgg a béy benn branchement bi fi Aquatech ak ñëwee ba léegi benn amul loolu sabotage la ñi nga xamante ni nag ñoo jàpp ne jafe-jafe ndox mi ñoom la gën a laal mooy jigéen ñi Aminata Gningue ñun waaye ñun jigéen ñi ñoo sonn ndax rootaan jeex na fi bu yàgg yàgg yàgg yàgg waaye léegi ubbiwaat nañu teen yi ak jafe-jafe yi ci teen yi li teen yi salte salte ndax mënoo toog te photo sanguwoo toggoo sangoo sa doom lii dafa jeex ñoo ngi ñaan nag Macky Sall mi nga xam ne nee na Sénégal émergent Sénégal mënta émerger te ndox mi baawaanu saawaan dañu koy ñaan dellu ginnaaw bàyyi noog ñu yoroon suñu forage bi nga xam ne dañuy root di naan di sangu di ma marche bi nag gannaaw ban ko autorisé ba pare encadré ko manifestant yi nee nañ dañ koy xel di wéyal bu aquatique jógewul foofu nga xamante ni moo di ci commune ba